ceey mënoo si gàtt rab na ma sonn te mënoo nit jàpp jàpp ñu fayal ñu indi fi jab rabatuñu pour baale kon tëjal sa gàtt bit bi de jànk la sàmm na ndawam kom su ma si dugg de fokk ma xat ñaan leen ma foto ndax léegi ma tukki te mars laay dugg te toog dafa tar ni ga yeah, c'est des bien